gërëm di rafetlu jataay bii nga xam ni am nañ ko fi tey muy conseil interministériel boo xam dañ koo jagleel mbay mi surtout ci campagne bi nga xam ni dafa war a tàmbali te du yàgg déglu nañu waa météo am na lu bari luñ fi wax déglu nañu ministère de l'agriculture mais liggéey bi xëy na tey la feeñ mais ren dañ ci amoon ci ndigalu président de la république beneen doxalin mooy li ñu gisee sunu biir en tant que administration gis acteurs yëpp waxtaan ak ñoom ñu doog a daje. ndax dafa am ay jàngat yu bari yoo xam ni def nañ ko ci hivernage bi passé bi ñu defaree jàngat yooyu yëpp président sant gouvernement bi fàttali ñuy ko mbay daf ko soxal ndax lu muy jariñ d'abord te dañuy dund te gis ngeen ni ministère de l'agriculture daf ci yokk souveraineté alimentaire maanaam askan wi mën a bay la nga xam ni moom lay dundee mu jariñ ko mu bëgg aussi koom-koomu réew mi mbay continuer di ci jouer lu am solo ndax genn wàllu population bi mën nañu wax ni ci mbay lañu ñu campagne yi nag gouvernement yàgg na ci def alal 2019 ñu ngi woon ci ñeent fukki milliards 2019 ak léegi yàggul ren mu ne béykat yi nañu fexe ba def fa téeméeri milliards ba pare mu wax ñu la nga xam ni mooy gis-gisam ak mooy bëgg-bëggam pour que résultats yi nga xam ni yàgg nañ ko am ren ji ñu am ay résultats yu ko ëpp lool bu ànd ak ndogal suñu borom ndax buñ dee wax ci wàllu céréale bi fi président ñëweeg léegi production bi ful nañ ko ñetti yoon ñu am un million cinq cent mille tonnes léegi ñu ngi ci trois millions six cent mille tonnes gerte aussi lañ doon am ful nañ ko ñetti yoon mu de nañu xool ci wàllu aménagement ci wàllu semence ci wàllu engrais nan lañ koy doxalee ba ñëpp mën cee jot nan lañ koy doxalee ba loolu amal askan wi njariñ mooy féliciter ministre de l'agriculture ndax boobu ba tey toogul wax nañ ci lu bëree bëree bari ñëw na fi lu bëree bëree bari ay services am liggéey nañ ci lu bëree bëree bëri ministère de l' économie ministère des finance ak acteurs yi nga xam ni ñu ngi ciy yëngatu. mesures yi jël nag du ay mesures yoo xam ne dañ ko wax rek sànni day dem ndax ni ma ko waxee léegi ci kàllaama nasaraam balaa ñuy def conseil bi. préparé nañ ko daanaka ci ñetti weer yoo xam ne gisee nañu lu baree baree ba suñuy technicien sax daje nañ ci ay séminaire point bu nekk ñu xool ko ci aspect yëpp ndax it li ñu war a liggéey ci réew dafa bari ba loolu pare ñun fi ñu tolloon président wan ñu yéeneem li ëpp na loolu ndax bu ñu amoon rek li ñu defoon daaw quatre-vingt quatre-vingt-dix milliards doon nañu doy ndax soxla yi bari na mu ne déedéet nañ ko def téeméeri milliards mu am nag lu ngeen fi jàmbat bi ci ëpp solo mooy seen diggante ak banques yi ndax am na ay bor yoo xamante ni yoreel nañ ko banques yi te boo yorelee banque liñ ko olof di waxee bor du am rakk banques yi duñ la mën a dimbaliwaat moo tax gouvernement bi dugal ci loxoom ndax banques yi aussi am nañ njariñ ci système bi ba nga xam ne li desoon ci boru deux mille vingt et un deux mille vingt deux bu toll ci fukki milliards gouvernement bi dina ko fay ministre de finance dina ko fay ci semaine bii ñuy dugg jël na matukaay dina ko def mais nag mbay mi noonu lay fonctionner toujours li nga xam ni mooy deux mille vingt deux deux mille vingt trois facture yi ñu ci certifié parce que noonu la mbay mi di doxee moom bañ ñu nee bu ñu amee retard ci deux mille vingt et un ko am dinañ ko fay talaat li ci des ñu ngi ci biir délai yi bëgg aussi loolu ñu gën ko gën ko gën ko leeral dinañu defal plan. boo xam ni dina waxtaan ak banque yi waxtaan ak ministre bi pour ñu xool nu ñu koy appuyer maanaam nu ñu koy fayee ci at bi incha allah plan boobu dina koy joxe xëy na fii ak weer wi di dee loolu lañ ko sant ci diir bu gàtt comme ça ñu jëmbal ko président de la république mu bokk ci yi nga xam ni contrainte la koy def pour gouvernement bi mën ko exécuter fii ak at bi di jeex yeneen jàmbal yi nag dafa tegu ci crédit yi dafa cher loolu aussi ni ko waxee dëgg la te it opérateurs yi du ñu am prévisibilité moo tax ren waxtaan bi nga xam ni ministre des finances ak ministre de l'économie ak yeneen acteurs yi waxtaan nañ ko mooy këyit yi ñuy jox opérateur yi dañ ci boole plan boo xam ni noonu lañ koy fayee parce que loolu c'est extrêmement important day tax ka lay lebal xam kañ nga ko war a fay mais yow miy joxe këyit bi aussi nga xool soxla yi nga am yëpp ndax état dafa bari ay yitte bari ay soxla yan contrainte nga am ba nga xam ni booy wax ak nit ki di nga ko mën a ne lii kat ñetti weer la lii du doon mois de mars mois d'avril lay nekk wala lii mois de juillet lay nekk comme ça banque bi dina mën a xam nga mën a gérer aussi sa yi ci wàllu état kooku aussi euh, séminaire yi ñu am je pense que loolu positif na ci ndax tey tax na ñu xool préoccupation yi nga xam ne ab dañ ko yëpp li ci des nag euh, ñuy wax ministre de l'agriculture di ko dolli félicité mook équipe am yëpp directeur yi fi teew di ko sant di ko gërëm di rafetlu aussi engagement bi nga xam ni am na ko ci wàllu agriculture ni mu ko bëggee mais surtout engagement bi nga xam ni am na ko ci defaral président de la république la nga xam ni sant na ko ci wàllu mbay mi walla leen di sant yéen ñëpp di leen gërëm li ci des nag moom dina ko waxtaan ak yéen léegi. bu ngeen génnee wala fii sax bu ngeen bëggee ngeen des fii comme sax mu gën leen leeralal décision yi nga xam ni jël nañ ko fii ci conseil interministériel bi et incha allah àllarba bii di ñëw dinañ ko jébbal président de la république moom nag bu ci àddoo muy doog doon loo xam ni c'est définitif ndaxit it noonu la ak yëf yi di doxe sunu xalaat juboo nañ ci lii waaye nag moom moo war a définir politique bi nga xam ni moom la ko réew mi dénk am nañu yaakaar daal lañu def dëppoon na ak la nga xam ni loolu la ñu waxoon kon ñu ñaanalante ba ba ak jàmm Ali dina ñëwaat xam naa ci communiqué conseil bi décision yi président mën a jël dinañ ko ci fasal ma leen di sant di leen gërëm. waaw jërë ngeen jëf. Euh, ren ci nawet bi ñi nga xam ne bii ñu ngi koy dëgmal président la république dafa am décision bu am solo bu mu jël yokk li mu nattal mbay mi jëm ci ndax 2019 li nga xam ne lii jëloon na ko moom ci subvention bu ñuy dugal ci mbay mi mi ngi tolloon ci ñeent fukki milliards ren mu ne dana fi def lu ñuy olof di wax gulet mosu fee am mu yóbbu ko ba ci téeméeri milliards téeméeri milliards yooyu nag naka la ñu ko séddale euh, diggante day jëm ci engrais bi maanaam lépp lu jëm ci programme agricole bi li nga xam ne dañ koy subventionné jëm ci engrais bi jëm ci jiw muy jiw gerte muy jiw ceeb muy jiw sorgo muy jiw mboq muy également euh, li jëm ci xeex bi nga xam ne bii dañ koy xeex njanaaw yi ak li nga xam ne dafay yàq euh, production yi te direction la protection des végétaux di ko di ko jël comme jumtuwaay euh, donc loolu lépp ñu ko xaymaa day toll ci cent milliards téeméeri milliards yooyu nag ñeent fukk yi mooy jëm ci wàllu engrais ak li nga xam ne li day dundal suuf si muy engrais muy phosphate muy engrais organique di engrais chimique Euh, loolu dinañ ci def ñeent fukki milliards naam daaw ñeent fukki milliards la woon ak juróom-ñeent waaye ren njëg yi wàññeeku na euh, waaye dañoo yokk euh, également volume bi maanaam volume bi nga xam ne bi dañ ko daan def ci diggante engrais yi rien engrais chimique bi danañ jóge ci téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-ñaar. junniy ton dem ci téeméer ak juróom-ñetti fukki junniy ton yokk ci juróom fukki junniy tonnes phosphatage boo xam ne bi bëgg nañ ko def ci ci mbay mi moo gën a dundalaat suñu suñu suuf yi ci wàllu jiw gerte bi aussi kenn ku nekk ci ñun gis na daaw di njëg yi yokkoo ren euh, tamit njëg yi ni mu yokkoo ci ñi ko doon jaay ba huile yi mënuñ ko am lañuy fagaru pour ñu mën a fexe ba ñi nga xam ne ñii dañuy également ji gerte gi mën a am jiwu gerte kon ren ñu fas yéene dugal ci ñaar fukki milliards ak ñeent daaw fukki milliards ak ñeent la woon moom lañ bëgg yokk ci gerte gi donc gerte gi moom it njëg bi maanaam li nga xam ne ni loolu la ko état di jëndee ci opérateur yi daaw mu ngi nekkoon ci kilo bu nekk quatre cent quatre-vingts francs euh, quatre cent dix francs quatre cent dix francs mooy juróom-ñett fukk ak ñaar moom lañ ko doon jënde daaw ren ñu sóoraale ne dinañ ko jëndee six cent francs boo ko comparé maanaam téeméer ak ñaar fukk boo ko comparé ak lim daan jar daaw yokk na euh, kilo bu nekk cent 190 francs muy fanweer ak juróom-ñett fanweer ak juróom-ñett yooyu nag état bi dafay gàlloo 170 francs muy fanweer ak ñaar fanweer ak ñeent 170 francs paysan bi muy producteur bi moom ci yokk bi ñeenti dërëm lañ koy yokkal kon loolu mooy li nga xam ne li mooy jëm ci wàllu gerte gi Euh, yeneen spéculation yi aussi mi ngi ci am na ci programme bi ren kenn ku ne xam ne ci wàllu coton bi def nañ ci presque juróom benn milliard pour jàppale coton bi def nañ également euh, ci ci yeneen yeneen xeetu mbay yu bees yoo xam ne dañ ko ciy dugal muy wàllu blé wàllu tournesol ak wàllu plan yoo xam ne dañ koy def ci ay palmier pour mën a fexe ba diw yi nga xam ne yi Sénégalais dañ koy consommer ñu war ko mën a bay fii comme ni ñu ko ni ñu ko bëggee donc peut-être li ma fàtte woon wax léegi ci ci ci français bi mooy pomme pomme de terre bi aussi ren danañ ko yóbbu ci juróom-ñeenti milliards ci ci semence bi muy lu également loo xam ne li am na am na am na solo donc euh, pour xeex bi nga xam ne bii nag moom la ñuy xeex euh, te DPV di ko di ko di jël ay jumtuwaay di ko jëfandikoo fépp ci Sénégal daaw kenn ku ne gis na gerte gi lu bari yàqu na ci euh, gis nañ ñebbe ji lu bari yàqu na ci gis nañ mango ji lu bari yàqu na ci daaw budget milliard ren ñu ngi jël ci DPV yokkal ko ci euh, programme campagne bi ba mu nekk 2 milliards 750 million am nañ yaakaar ne loolu bu ko amee dina mën a mën a taxaw pour que bu euh, xeet yooyu ñëwee mu war a mën a jàmmaarloo ak ñoom donc loolu mooy programme bi nga xam ne bi noonu la répartition bi tëddee ñu fas yéene nag ci fan yi di ñëw Euh, ginnaaw bi nga xam ne bii euh, ministre des euh, finance mi ngi fi woon wax na ne jël na engagement ne déjà bor yi nga xam ne yii desoon na ci bor yi daaw jéeg yi ñu fay ko semaine bii di ñëw comme sax bor yi nga xam ne yii mooy bor yi nawetu daaw bi aussi mooy bor yi état ameel opérateur yi laa aussi dama koy préciser mu gën a leer état bi dina jël ay matuwaay pour fay ko ni nga ko ni nga ko prévoir ci budget bi ci plan boo xam ne ministre de finances danañu ko proposé.